alhamdulillahi alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim inna waliyallahu ma tawfiqa illa billah mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi su xel ci suñu internet bi di 24 actu yi ñu ngi leen di bu baax di leen ziar di leen baalu àq di ko sàkku ci yéen waaye itam di jiital suñu nuyoo ak suñu ziar Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ba mottali ay naanam ak yéenam ci liggéey Xaadimul Mustafa bi waaye tamit noonu Ibou Fall mu yàgg fi loolu te ak mboolem xalif généraux yi waaye tam di ñaanal ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci lali hôpitaux yi suñu borom fëgg seen i bopp euh, ba dellowaat leen ci seen i activité euh, comme niñ ko baaxoo di ànd ci seen émission bi ñu dëppee gëstu bi ñu dëppee gëstu diine ji euh, gëstu diine ji nag yaakaar naa kenn dootu leen ko présenté te ci seen biir kër gi di 24 actu mu nekk loo xamante comme di leen ko waxee woon ci bopp ba rek gëstu diine ji nekk émission boo xamante ci benn boroom xam-xam ñu waxtaan dana leen ci faram-fàcceel ko comme ni mu gën a yaatoo tey nag gis dina ji dalal benn suñu benn gan bu mat gan mu nekk muy wuyoo si su Moustapha Kane sëñ Moustapha Kane nekk koo xamante ni mën nañu dafay jàngale ci école franco arabe fële ci Touba Darou Manane laata ñuy doori jotaay bi ñu bàyyi suñu gan sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu nga xam ne ñoo lay bàyyi xel ci site bi di 24actu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد mbokk yu tedd yi ginnaaw sant yàlla borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi leen di nuyu nuyób lislaam leen ziar bu baax ma macha allah eh, soxna Astou ñu ngi lay fay nuyoo. Mm-hmm. di nuyu say internautes. Mm-hmm. di nuyu suñu technicien bi. di ko mm-hmm. ñaanal yàlla subhanahu wa taala. ñu ngi ñaanal Cheikh Mountakha Bachir al xalifatul aam lil muridin yàlla subhanahu wa taala yokk aw fanam. yokk kattanam. bu ma egg laay naanam ci lislaam ak ci murid gi incha allahu taala. kon soxna Aïcha ñu lay bàyyi incha ci sa jotaay. jërëjëf sëriñ ci nuyoo bu am solo boobu macha allah comme niñ leen ko junjee woon sànq rek ci bopp jotaay bi sëriñ Moustapha kan nekk borom xam-xam aussi nekk tamit ku jàngale ci Touba Darou Manane di rafet école franco arabe. tey nag seen gëstu dina ponk bi nga xamante ne moom la leen indil tey nekk li nga xamante ne mooy àq dëkkandoo sëriñ Moustapha àq dëkkandoo nekk loo xamante ni mën nañ ne lu yaatu yaatu la te mën nañ cee faram-fàcce lu yaatu àq dëkkandoo ñu seetlu na jamono ji nekk na loo xamante ni daanaka nekk nit ñi bàyyeetuñ ko xel kenn ku ci nekk sa dëkkandoo nu la neex ngay doxalee ak moom nu la neex ngay waxalee ak moom ñu tollu jamono joo xamante dafa mel ne léegi xam-xam daf ñoo réer wala dañ koo xam ba pare jëfeetuñ ko wala tamit ñi nga xamante ni xamatuñu de laajteetuñu Oustaz Moustapha Kane euh, bu ñu bëggee xam lan mooy àq dëkkandoo lan nga tontu. da nga wax li ñuy tuddee xuququl jaar le droit voisin c'est-à-dire muy àq yi xam ne bépp euh, dëkk dafa am moroom moroom dëkkandoom mm-hmm. lan mooy xaq d'abord mm-hmm. al xaqu muy droit mooy li ñuy tudde bu ñu nee xaqa mooy sabata mooy sadaqa rek mooy lu sax la lu dëggu la boo ne woon day xaqal amru mooy sabatal amru moom la yàlla naan waaye xiqal xawlu ala al kaafiriin surtout Yaasin kon xaq nga waxee mooy un droit mooy loo xam ne dafa yey ci nit ki dafa dafa war ci moom dafa sax ci moom mhm. bu dee nag aljiran wala aljar muy dëkkandoo muy un voisin mhm. dëkkandoo mooy ki nga xam ne da ngeen dëkk mhm. da ngeen dëkk ci benn kër ci benn appartement ci benn néeg sax ci benn koñ ci benn dëkk ci benn villa mhm. kooku mooy aljar muy le voisin alquran subhanahu wa taala yàlla sama moon moo ñu moo ñu moo euh, ñu leeralal ñan ñoo ay dëkkandoo ndax li ko ñu bëri jàppee gën a yaatu loolu kan allah subhanahu wa taala wax ci alquran ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجند والجار ذي الجنب والجار بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ allah subhaana taala nee na macha allah da ngeen jaamu yàlla subhaana wa taala te bañ ko mm-hmm. bokkaale mm-hmm. waaye ngeen rafetal ci way jur yi bu defee nag bu ñu bu dëkkandoo ñooy ñan bu mm-hmm. tàmbalee ko ci ki nga xam ne da ngeen dëkk ci koñ bi da ngeen dëkk dend ak ki nga xam ne da dëkk sax ci même place ki nga bokkal di liggéey kooku dëkkandoo la aussi même sax ki nga bokkal car de transport sa dëkkandoo la doomu yoon bi sax ki dox ba xëy na jaax la ñëw sa kër jamono bi mu nekk yow kooku dëkkandoo la Euh, ak sax même jaag yi nga xam ne da nga leen yi def ci seen i jaag def seen dëkkandoo lañ kon dëkkandoo mhm. ci dëkkandoo mooy xam ne képp koo xam ne da dëkk ci benn localité euh, ci benn kër ci benn appartement ci benn chambre mhm. ko commencé ko ci soxna si biir néeg bi euh, ci waajur yi mhm. ci waa kër gi ba ci waa koñ bi ba ci dañ naan sax dëkkandoo dëgg dañ naan ñeent fukki kër ci sa ndeyjoor sa càmmooñ sa kanam sa ginnaaw yëpp say dëkkandoo la ñuy doon kon daal ci tënk loolu mooy loolu mooy dëkkandoo kon daal mm-hmm. xàq mooy li nga xam ne mm-hmm. moom droit mooy droit bi ko mm-hmm. ameel euh, nit ki nga dañ naan droit de la femme droit de l'homme muy xaqi gone gi xaqi dëkkandoo yi xaqi jigéen ji bu ñu xaqi dëkkandoo kon xaq rek mooy la nga xam ne dafa yey mu moom ko xaqam la nga xam ne boo ko joxalee ëllëg dafa lay poñee dasa sal wax na ni ci global bi ci plan global wax na ne ëllëg yo mën xaq yoo xam ne bépp jullit xam ne daf ko généraliser daf ko amee bokk yan juróom la. yi mooy bi njëkk mooy nee na raddu salaam. raddu salaam delloo nuyoo. delloo nuyoo nee na sa mbokku jullit. Mhm. bu la rombee nuyu la. fayiloo ko ëllëg yow man xiyam dina la poñetee mhm. ñu ne sama xaq jox ma ko ma ne ko lu ma ban xaq la la amee man xamante ñoon bu na xaq yi mhm. bés sàngam romb naa place ko bu mooy euh, maana euh, seeti ku wopp aynatul marid sa mbokk dëkk na bu feebaree sa mbokk julli sax lay wax su feebaree seetiwuloo ko tee nga ni feebar na yàlla loolu sa sor nee na boo ëllëgee boobu dina la poñe ma ko nga ne ko war xaq laa la mel mm-hmm. mu ni ci àdduna feebaroon naa nga ko te seesiwuloo ko ko la ma koy fay mm-hmm. bi ci sa mbokk julli bu faatu xaqam la mm-hmm. c'est son droit nga gunge ko soo ko gungeewulee robi ko bu yomal ëllëg yomal xiyaam mën na la poñe ci kanam yàlla subhanahu wa taala ci kanam yàlla ni sama xaq fay ma ko nga ne ko war xaq laa la mu ni yow ci àdduna faatu naa nga yëg ko te gunge woo sama néew ba ba ba rob ma ñaanal ma xaq la ci sama xaq la boo amee dama koy fay. Mm-hmm. li topp mooy ijaabatu daawa muy wuyu ab woote sa bokk jullit. saa bu la woowee danga ko war a wuy ji moo xam ci cérémonie la mhm. moo xam ci ñam la sax lu mën a doon xaqam la de mhm. saa bu la woowee ne invité rek mhm. da nga war a dem wuy ji ko soo ko wuy ji wulee xaqam la boo xam ne ëllëg di nga ko delloo yóbbu xam insha allahu taala bi des nag mooy tashmitul aatis te mooy ndokkeel ko ci siwal yi sama ko jullit saa bu ci siwalee ne alhamdulilahi rabbil alamin xaqam la nga ne ko yarhamukallah wala yarhamuki la bu dee jigéen la soo ko waxoolee ëllëg yóbbu xam mën na la poñe jël sama xaq jox ma ko xaq la mu amee mu ne ah ci àdduna te siiwale woon a sa kanam ni mhm. alhamdulilah nga ne jàll waxuma dara xaq la fay ma ko loolu moom c'est général nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk mhm. mooy xaq nga xam ne bépp julli dafa ko ameel moroom mhm. julli am na ak yoo xam moom dafay concerné ñi nga xam ne ñoo dëkk waaw. macha allah oustaz dugg foo xamante ni fu ama am solo la mooy da nga wax ne xàq dëkkandoo dafay nekk loo xamante ni ci biir kër yi lay commencé ñu seetlu na dañu xool jamono joo xamante ni euh, am na ci ñoo xamante ne bu ñu déggee xàq dëkkandoo a dendee kër ak ko déggee nga waxee ko sa biir kàddu mel na ne xàq dëkkandoo sa biir kër nga ko war a commencé kon tamit a changer a euh, organiser waat seen bopp la xam euh, anam bi nga xamante ni noonu la ñuy ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal kër euh, mais oustaz nga wax loo xamante ne lu am am solo la muy ci juróomi ponk yooyu nga xamante ne tudd nga ko sànq muy euh, delloo nuyoo ñu toll jamono boo xamante ni nit ñi chaque jour ngay romb nit nuyu ko ko nuyu naa ko mais du ma fay damaa sonn ak genre yu mel na mu mel ne léegi nit ñi benn dañoo jàng te jëfeetuñu wala dañoo xamut te laajte wuñ oustaz waaw li nga wax loolu sax ñaari ko am na nag am na yoo xam ni que mhm. jàng na ba jëfa nuyu jàng am ñoo xam dañoo xamul moom far benn yoon. Mhm. Euh, mais ki jàng xam xaq xam li nga xam ne mooy li nekk ci fay nuyoo. Mhm. sa mbokk julli romb na ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mhm. dafa la ñaan a jàmm. war ko delloo ñaan googu le nga ni cell. ni ko waxee dëgg rek soo xam ne da ngay romb ay nit di nuyoo. ñu ngi ci ci yenn nekk ñu ngi ci lido ba ñu ngi ci damier ba ñu ngi ci mm-hmm. werante ba ñu ngi ci kenn xamul mm-hmm. nga nuyoo ba jàll léeg-léeg ka ca tane ka ca tane mooy ba nga jàll ba romb mu ne a ah, sa wax nga dëgg de sa waaleykum salaam kenn nuyoo woon na sax mm-hmm. ba ki ci tane ki ci tane ñeneen ñi moom faale wuñ ko xamuñ ni fay nuyoo moom farata la xam nga nuyoo sunna la waaye ko farata la alquran nee na aouzu billahi min alshaytani rajim fa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana ah, minha aw rudduha Quran nee na bu ñu leen nuyoo mhm. na ngeen nuyoo bu mel ni boobu wala ngeen delloo ko salaamaaleykum mhm. luy fay gi mhm. waaleykum salaam wa eh, la waaye kii nuyoo moo ko doole parce moo créé jàmm yi ci moo créé nuyoo bi kon moo ëpp doole ki fay doon sax fay nuyoo farata la waaye noonu sunna waaye moo ëpp doole foofu lañ naan kon solo waaye ba léegi tamit ci juróomi ponk jooyu nga wax sànq ne ci àq la bokk da nga ci tudd loo xamante am am solo la mooy nga gunge ku faatu oustaz ñu tollu jamono joo xamante ni mbas mi lëmbi àdduna li ñuy wax covid 19 ñu xool daanaka léegi néew yu daanaka léegi néew yu moom amatuñu sax ñenn ñu leen gunge léegi jamono boobu oustaz naka nga koy toloore ak àq dëkkandoo voilà xam nga loolu tamit mhm. euh, xëy na circonstance la mhm. zaroof la mhm. man peut-être mën naa am jamono ko laaj nga xamee ni xëy na Covid bi wala ni nga ko wax sànq. Mhm. Euh, tax na ñu arrêté woon. ñu mhm. ci jàkk yi ak julli juma ni mu fooree. Mhm. tax na ñu arrêté woon euh, sax dem ci classe jàng yi mën naa am yooyu circonstance mën naa naa am xew-xew yooyu xëy na mën naa tax ba nga xam ne. Euh, ñu dajaloo di gunge ki faatu xëy loolu mën na koo fànq waaye bu fekkee dara xewul moom. bu fekkee amul benn benn lu gaar loo xam ne mën na tey ñu dem gunge ji ki faatu moom. julli bi saa bu yëgee ni mbokk julli tam wàcc na bu ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala ñu rab ko mu ñaanal ko njéggal ñaanal ko sabaat mhm. delluwaat fa mu jóge woon loolu xàqam la bu fekkee daal moom dara xew loo xam ne mën na gàllankoor nit ñi mhm. kooku xàq la ci bépp jullit moom mu dem gunge mbokkum jullit bu fekkee dafa faatu xàqam la mhm. xàqal boo xam ne ëllëg kenn ëllëg yow xew yu bàyyi xel ne duñ duñ baale dara ëllëg amul baale alquran nee na audu billahi min alcheytani arrajim yowma yafiru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imriin minhum yowma idin shanun yugni quran nee na yowmal xiyaam kenn du baale ndaw dafay eh, eh, eh, doom dafay daw papa papa di daw doom mhm. yaay di daw doom mhm. jëkkër di daw jabar mhm. xarit di daw xaritam frère di daw frère am kon amul baale koo fa amee xaq na nga koy fay moom bon moom mooy bis boo xam ne moom amul baale moom rasulullah ne woon ëllëg yawmal qiyaam dafa am bis mu toog saxaaba ñi waaye xam ngeen almufallis almufallas mhm. ku ñu saisir mooy kan mhm. ñu ne quoi mooy koo xam ne doon def commerce après affaire mu perte mhm. mu ne kon al muflis a bëgg a wax muy ki ñu ki nga xam euh, du kooku daf ko nuru nag ki doon def commerce commerce ba doxatul mu mhm. perte mu mhm. ne muflis ku ñu saisir mooy ko xam ne dafa indi yomal xiyaam julli yu bari mhm. indi koor yu bari indi azaka yu bari aj màkk yu bëri ay zikar yu bare bari waaye fekk nag tooñ na kee saaga na kee yàq na deru kee lekk na alalu kee jëw na kee rambaaje na kee ñu jël di fay nit ñi seen xàq kam tooñoon ñu fay ko ci julleem ya kam saaga woon ca julleem ya ca kooram ya kam xasoon kam lekku alalam ba far yàgg lam yoroon lépp ci tuyaaba jeex mm-hmm. comme li mu yoroon jeex na mm-hmm. te xaq yi moom ba léegi mi ngi des ñeneen ñëw laaj seen xaq comme amatul dara mm-hmm. ñu jël bakkaari ñooñu sëf ko ko moom mu dem sawara fekk fekk bi mu ñëw indaal julli a moytu a xaq dëkkandoo comme ni ñu ko waxee oustaz ki nga xamante ne dafa war a doxal xaqi dëkkandoo rawatina ki bokk bokkal kër rawatina ki mu bokkal euh, koñ ban comportement ak ci ban doxalin la war a dox doxalee ak mbokku fii tam oustaz. nit am fekkee yàlla subhanallah nekk na ko dëkkandoo. Mhm. Euh, ni mu war doxalee moom rek mooy ni ko rasul sam jàngalee woon ci ay mhm. xaadisam yu wér a wér a wér ñaari xadis rek la moo aju ci dëkkandoo mhm. bii dafay digle bi mu tere bi daa wax ni ku gëm yàlla gëm bés penc na ngay rafetal jëmee si dëkkandoo beneen bi ni ku gëm yàlla nga bis pénc na ngay moytuloo sa dëkkandoo ba falir sa ila jaari bi fali fali bi fali falal jaara waxu loolu dëkkandoo mhm. bu defee kon nag rasulullah sallallahu alayhi mu toog saxaaba yi nii wallahi laa yu'min ñett yoon la ko wax waat naa ni waat naa ci gëmul mm-hmm. waat naa ni gëmul waat naa ni gëmul yàlla ñu ne ko ah yow yàlla yónni ki gëmul ku mu doon mm-hmm. mu ni ki nga xam ne dëkkandoom duñu wóolu aw ay loram ki nga xam ne saa bu ay dëkkandoom xëyee mm-hmm. ñu ngi jàpp ni balaa ngor mu lor leen ci làmmiñ wala ci jëfam ne ko gëmul yàlla yoon yaa rasulallah yow yàlla ki gëmul ku mu doon kooku moom gëmul lu mu doon. Mhm. mu ne ki nga xam ne ay dëkkandoom amuñu confiance. ci mhm. ci ay loram. Mhm. saa mu ne xëy na balaa a soob ñu jàppale ma ne la koo gëmul. benn benn bis bu toog ba yàgg. Eh, saxaaba yi toog ci kanamam ne ko diw soxna diw day moom day ak bëri julli ak mënoon a a def lu baax mu ah, nga xam ne moom ni mënoon a jullee ni mënoon a woore nga ne la mu ne hiya fi naar mi ngi sawara ñu ko lu tax mu ni parce que dafa doon lor ay dëkkandoom ci làmmiñam gis nga kooku donc nga xam ne kon kooku ndaw soosu mhm. ak li mu doon mën a julli yépp li mu doon mhm. mën a jaamu yàlla lépp mhm. li ko tàbbal sawara mooy lor ay dëgëram ci làmmiñam te moo ko jëf te loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la li nga xam ne moo diggante dëkkandoo ak ki mu dëkkal mooy rafetal jëme ci moom dama jëme ci moom di ko di di rafet ci moom euh, Rasul sallam ne woon na Jibril dafa ñëw di ma dékk dëkkandoo di ma ko dénk naan ma Mouhamed fonkal dëkkandoo de nga bàyyi xel dëkkandoo de mm-hmm. ba sax ma defee ni def ko war dëkkandoo fonk ko ba nga xam ne ma jàpp ni mm-hmm. dañ ko war a doon te moo yee nag ndax dëkk du mooy koo xam ne ñu ko wax toujours mhm. koo xam ne yow tey bu sa kër la fa mën a xew mhm. muy lu neex muy lu naqari moo nga njëkk a gis moo nga njëkk a gis lu dem sa kaw rek moom ki nga njëkk a gis mooy mooy mooy mooy lu mën a am rek mhm. balaa say bokk ñëw say jege ñaane moom mooy njëkk a ñëw moo tax kon yàlla subhanahu taala bëgg lool ñu fonk dëkkandoo baax a baax a baax ne woon na euh, Abu Zari soo sax toggatee aw ñam na nga ci may sa dëkkandoo su fekkee ndawal gi xëy na dafa néew ba xëy na euh, mënoo ca may dëkkandoo bi na nga bari ñeex ba lu may bokk ci ñax ma. mais oustaz xam naa foofu daguma la mais ñu seetlu na dañu tollu jamono joo xamante ni par exemple kër Moustapha oustaz Moustapha Kane mi ngi nii que ñoom soxna asusila mi nii mais euh, soxna asukat moom chaque jour mi ngi togg ay ginaar mi ngi togg ay yàpp muy xeeñ di dugg si biir kër gi te ñee daanaka seen kër euh, la yàlla xam doy na demee demeewul noonu loolu tamit oustaz naka nga koy comparé ci thème bi nga xam ne mooy xaqooqu jaar maanaam sa dëkkandoo nga yendoo toggul ñam wu am solo mm-hmm. xet gi yendoo koo xeeñ ba mm-hmm. ngoon jot mm-hmm. ah, muy banamti ko mën naa am amul doole moom ba a def li nga def amul doole a def li nga ko ba mu àgg dugg sam li sa njaboot ngeen xewlu loolu moom de wuru dem noonu kon li wala li war a mooy rafetal di ci dëkkoo te mooy di ko jox di ko may bu sàkkoo ci yow dimbal nga dimbali ko bu sàkkoo ci yow conseil nga conseil ko bu ci yow nga nga orienté ko maanaam bañ koo tëju ndax ki romb ay nit yu bare ba ñëw ci yow dina bëgg a conseiller ma kon da nga ko war a conseiller oustaz mu nekk lu am solo waaye tamit euh, xam naa euh, ñu ngi jëppandaw gi oustaz ñu seetlu ne euh, comme jamono ji daanaka boo xoolee jamono yi jamonoy Seexna si Ahmad Bamba Xaadimu Rasul jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak nit suñu nit ñu baax ñi nga xamante ne mën nañ ñu jiite jiitu woon daanaka mën nañ ne àq dëkkandoo dañu ko fonkoon ko respecté woon te dañ ko daan def anam bi mu waree ñu xool ne comme jamono ji oustaz yàqu-yàqu yu bëri la yàqu-yàqu yu jikko yi tey jii boo ñu doon wax yàqu-yàqu yooyu mën naa ne lu ci ëpp ak ba waral mën nañ ne daanaka li nga xam ne mooy xuquuqu jaar doxaluñ ko yàqu-yàqu yooyu ma nga ne lan nga yaakaar mooy sabab bi oustaz sabab bi mooy euh, ñàkk maanaam dañu dellu ci référence suñuy référence xam nga am nañu ay repère mhm. a doon muy yàqu mhm. a doon la ci fa mu dellu rek am nañ ko de am nañu ay mhm. référence mais dañ leen toppul dañu jël ñeneen repère ci ñoom bu dee ci wàllu dëkkandoo bi ko sànq dañu référé ci le papa la maman le chien et le gardien <laughs> loolu la ñuy dund fii au Sénégal. Mhm. papa ji yaay ji euh, euh, xaj bi ci bi association le chien. Mhm. le chien méchant. Mhm. ak itam gardien bi la ñu bàyyi xel. dund boobu nag lay dund moo tax. mais bi ñu dund ensemble liggéey ay jullit lañ suñu référence mooy Cheikh Amadou Bamba bu dee ay góor lañu jigéen suñu référence mooy Soxna Jaara la dundee ak waa këram ñam doon def ak ñam dëkkal moo xam ñu bokkul si mag si la wala sax ñu ñu bokkul dëkk ci Porokhane wala benn dëkk bu mën a doon mu nekk lu teg ñoom bu ñu fekkoon am na jëm fi xam ne ba jël repère yooyu mhm. te bàyyi bi télévision bi parce télévision bi muy jàngal dañuy jàngal vie wala dundu oriental dundu tubaab bi la ñuy jàngal. macha allah bu defee nag li am solo daal pour ñu mhm. dellu fa ñu nekkaatoon. Mhm. fexe ba sàmmonteeg suñu ay suñu ay suñu ay valeur mhm. mooy rek jël référence ci ñu ko war a jëlee. ci Amadou Bamba Soxna Diarra Bousso. suñu tubaab waa këram. Alxaaji Maalik en tout cas ñu baax ñooñu. bu la jëlee comme référence incha allah taala jàpp naa ni euh, dinañu dinañu nekk fa nekkaatoon. macha allah oustaz mu nekk lu am solo mën nga ne lan ngay euh, tëjee say kàddu ak lan ngay ñaax askan bi ak looy tàggatoo waale ci ñi nga xamante ñu ngi lay bàyyi xel ci site Euh, naam ñu ngi lay euh, kàddu gi rek moom mooy gërëmaal la soxna Aïcha bu baax a baax rafetlu tamit vraiment jotaay boobu la solo di tamit encouragé mhm. ci liggéey bi euh, yombul de trop mhm. yombul waaye alhamdulilah gis nañu amale moo am na solo gisakalaaw xëy yàlla yàlla fayati taxaw la allahumma amiin gërëmaat sa technicien bu baax a baax mooy tamit mhm. saa yi vraiment mi ngi bi jaaree macha di rafetlu tamit bi di tam Euh, encourage tamit kër gi. Mhm. Euh, ak ñu ko waxee. 24 actu 24 actu voilà. Euh, ñu ngi koy ñu yàlla subhanahu wa taala def ci barke ba mu xëy na ngeen am télévision. amiin amiin mag a mag macha allah taala. amiin yàlla mën na yàlla ko def. Mhm. di gërëm vraiment internaute yi bu baax a baax a baax. Mhm. di leen ndokkeel bu baax a baax. rek di leen wax rek ñu gën a farlu. xam daal dëkkandoo lu ama am solo la. lu ama ama am solo la ëpp naa sàggane. lépp loo mën ci sàmm ko lépp loo mën ci fonk ko. lépp loo mën ci voilà euh, kon ñu ngi lay gërëmaat di la ziar uh-huh. euh, di leen ndokkeelaat di rek kon tëjëwaat aay bi nga xam ne moo la ubbee woon rek aay bi nga xam ne yàlla subhaanahu daf ci saaf daf ñu ciy dugal uh-huh. ñu sàmm xàq di ko baax a baax a baax uh-huh. euh, ma jàngal aay bi kon tëjee ko insha allahu taala borom wax ni aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله laa yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura. macha allah macha allah Oustaz Moustapha Kane ñu ngi koy jaajafal bu baax waaye tamit di ko sant bu baax di ko gërëm ci yombalal gi nga xamante ni yombalal lañu ko invitation bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen wax rek comme ni ñu leen ko waxee woon ci bopp jotaay bi mu nekkoon suñu gan tey ci gëstu diina ji nekk li nga xamante ne moom mooy xuquuqu jaar ak dëkkandoo tey moo nekkoon suñu thème ci gëstu diina ji ñu faram-fàcce ko mën nañu yaatal nañ ci lu baree baree baree ñi ngi sant bu baax oustaz di ko jaajëfal di ko gërëm di ko ñaanal yal na suñu borom subhanahu wa taala gën a yokk xam-xam bi gën a barkeel li mu ci bëgg rek moo ko xam yal na ko suñu borom subhanahu wa defal waaye tam di leen jaajëfal ñi a ñu ngi safoo yéen a ngi ñuy damoo ci site suñu caméraman Modou montage bi bu jaaree yoon moom la muy Cheikh ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci seen beneen émission aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alkarimi silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan